yooyu nekkatul ak man mais ku di ma message di message ma tëb tëb rek sama benn cousine bu nekk France message ma vidéo dama tiit ba ma ko gisee lii da laa ci ma nag ku ma def gif gi waaye teg naa lépp ci loxo yàlla bu yàlla xamee ni bonuma may ndaw su ko ba tey maa ngi encaissé mais garaawul parce que lépp man la man na wax dëgg yàlla sama ngor mayeeku ma may wax ak kenn ñi may wax ak yow sa daf ma diis daf ma diis trop su ba tey liñ ci am ni gën amu ko ci sax lu bëri may woo ku nekk mënu ma wax ak kenn ndax xaw ma lu ma leen war a wax bi ma expliqué moo tax ma wax ak yow mais daal garaawul bàyyi naa lépp sa loxo noo ko géré rek. ba xam ni loolu de vidéo yi nekkatul ak ma mais ku ne message di message ma tëb tëb rek sama benn cousine bu nekk France message ma vidéo dama tiit ba ma ko gisee lii da laa ma def gif gi waaye nag teg naa lépp ci loxo yàlla yàlla sama suba ba tey maa ngi encaissé mais garaawul parce que lépp man la man na la wax dëgg na sama ngor mayeeku ma may wax ak kenn ñi may wax ak yow sax daf ma diis daf ma diis trop suba ba tey liñ am nii kenn amu ko ci sax lu bëri may woo ku nekk mënu ma wax ak kenn ndax xaw ma lu ma leen war a wax. vidéo yi nekkatul ak man mais ku ne di ma message di ma message ma tëb tëb rek sama benn cousine bu nekk France message ma vidéo dama tiit. laa ci am nag ku def gif gi waaye teg naa lépp ci loxo yàlla bu yàlla xamee ni bonuma sama xol bi yeneen naa ko lépp su yàlla xamee aar rek laa xam xaw ma lu bon su yàlla xamee aar rek laa xam xaw ma lu bon maanaam am ay nawle su ba tey maa ngi encaissé mais garaawul parce que lépp man la man la wax dëgg yàlla sama ngor mayeguma may wax ak kii te daf ma diis daf ma diis trop suba ba tey liñ ci am nii kenn amu ko ci sax lu bëri may woo ku nekk mënu ma wax ak kenn ndax xaw ma lu ma leen war wax bi ma expliqué moo tax ma wax ak yow mais daal garaawul bàyyi naa lépp sa loxo dina ko gérer rek ba xam ni loolu la